Alfayda c'est la référence. waxtu wi ñu jagleel xibaaru olof yi jot na ci rajo Alfayda auditeurs yi ahlan bikum li gën a fës ci bopp xibaar yi délégation bu gouvernement bu Sénégal ñu ngi woon nikki démb ci dëkk bu sell bi la di Medina Baye indi seen ak njaal ginnaaw wàccu liggéey a cheikha xaadimatul quran a sayida mariama bintu cheikh al islam El Hadji Ibrahima Niass yaatal gi ci biir xibaar yi lay doon président Macky Sall nag lew nañu seen merewuñu ko ndax li mu leen defal benn président musul leen koo defal du samay kàddu imaamu lew nañu seen moo ko xamle arabi ñes mu yokku ca ne président Macky Sall mësta wax ne lew nañu seen du ñu amal ren seen ziyaara coowal ziyaare boobu sax ki nga xamante ne moo di porte parole bu lew nañu seen timit Serigne Ahmed Babacar Niass daal dina ci addu ne waa kër maam xalifa Niass ca Blaise Diagne ba ci Macky Sall mosuñoo contre état kon Macky Sall na xam ne kenn contre ko fa xalifa bu lew nañu seen nag bu demee ba yëkkati kàddu lu officiel fay oo taskatu xibaar yi waaye kàddu yi fi jib réseaux sociaux yi ñoo ko jàllale maanaam waxtaanu biir néeg la yu ñu warutoon a génne ñu génne ko da ngeen ko teewlu yaatal gi ci kanam lay doon. Faalifa ab dëkk-dëkkaat la bu nekk ca pos su Kër ay frontière Sénégal ak Gambie askan wa nag jaaxle gu mat sëkk ci la ñu nekk ndax seen dëkk ba fa lakk nikki démb lakk gu méttee métti seen jur ga du fas xar bëy lu bëree fa dee ngooñ ma lañ ca lakkule moom kenn xamul nu mu toll ba tax ña ngay sàkku ndimbal lii bu yembee dinañ ci toftal xibaaru biti réew yi ànd ci ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram ñu ànd ci ak Moussa Kane li ci yéene kaay mooy li koy jeexal su ngeen taaxarloo ma dikk ak ci yaatal gi le journal. Omar Cissé. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu auditeur u Alfayda ginnaaw bu ñu leen nuyoo dal leen jàmm ci xibaaru wolof yi tey ci àllarba ji dañu koy doore nag ak délégation bu mag bi nga xamante ne moo bàyyi ko ci gouvernement bu Sénégal ay ministre ci njiital ki nga xamante ne moo di jëwriñ ji di Omar Gueye ñëw andi njaaluk état bu Sénégal ginnaaw wàccug liggéey a cheikha a sayida Mariama bintu cheikh al islam El Hadji Ibrahima Niass ginnaaw bu mu wàccee liggéey ki nga xam ne nag moo jiite woon délégation bi te wax ci seen tur suñu ndaw Cheikh Tidiane Diagne demoon na fekkee jotaay ba ñu teewlu ay kàddoom jàngalekatu alxuraan bi làqu na jamono ji mu ngay dallu ci wetu waajuram bu góor Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Baye Seyda Mariama Niass gannaaw ba ñu ko jébbalee boromam ci dëkk bu sell bi njaal yaa ngay wéy njiitu réew mi di président Macky Sall moo yebaloon délégation boo xamante ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale yi di Omar Gueye moo ko jiite woon wax ni bu la koy jaale mooy xaritu alxuraan la alxuraan it di xaritam diirub dundam yépp léppam alxuraan la. kàddu yi mu yëkkati ko ci xalif général bu Medina bàyyi moom mi sax dikkaate ci taxawaayu soxna si ci wàll njàng ak ni mu liggéeyalee réewam ba ña ca bitim réew ràññee Sénégal ci wàllug njàng ak njàngale ministre Omar Gueye. président Macky Sall wax na ni moom day ku ñu ràññee woon la Sénégal ak ci bitim réew ndax liggéey bu mu fi liggéey jëlee ko ci waajuram ju tedd ja suñu maam Ibrahima ñas président wax ni ku mel noonu de li mu liggéeyal Sénégal liggéeyal ko diine ndax rayonnement Sénégal fu turam egg tey soxna si liggéey na ci. Cheikh Mouhamadul Mahi xalif général bu dina bàyyi jël kàddu yi rafetlu tamit taxawaayu président Macky sàll bi xew mi amee ak tey ki dëkk bu sell bi. dëgg-dëgg suñ gouvernement suñ président de la république won nañu ci Sénégal ne ñun ñoo yéen la ñun nekkuñ fële ngeen nekk fële ñun ñoo yéen la ñun ñoo koy ànd di ko bayandoo ñoo koy ànd di ko liggéeyandoo su ko defee loolu indi na sotteeku boo xam ne ci Sénégal jox na yaakaar boo xam ne dëgg-dëgg ci seen jamono la ko yaakaar boobu commencé di dugg ci nit ñi. xalif général bu dina bàyyi gën naa ñaax gouvernement bi ci yaatal suuf si ba xale yi mën a delluwaat ci mbay mi wax na sax ne moom am na ab projet boo xamante ne taxawal na ko ci dippee ko combattre la pauvreté mu jàpp ne li nu mel mën naa wàññi ndool ci réew mi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xalif général bu Medina Baye. am nañ ay xale am nañ ndox am nañ suuf góorgóorlu rek defar programme mu mbay boo xam ne Sénégal nekk dina boppam defee rek balaa ay at rek da nga gis ne mën nañoo xeex pauvreté te mën nañ ko fay jëlee tax projet boobu maa ko tuddee combattre la pauvreté danañ ci yàlla defal sutura ñu ñu am ko ci biir Saalum délégation bi Omar Gueye jiite woon nag ñu fàttali ne gouverneur Alioune Badara Mbengue Ahmed Tidiane Thiaw préfet bu Kaolack soxna Mariama Sarr nday guréew bokk moomeel bi ci Kaolack ak Mouhamed Ndiaye Rahma ambassadeur itinérant bi ñoo ko gunge woon Cheikh Tidiane Diagne sant ak ngërëm ñeel na waaye duñu la bàyyi ndax tàllal nga sa micro euh, ji nga xamante ne moo jiite woon délégation bi kàddu yii la yëkkati ci kanam xalifa bi ñu teewlu ko. président nee na mbas mi nga xam ni moo fi ne ba tax lu bëri luñ daan mën a def mënatuñ ko def ni mu waree bu ñu toogee ñun ñëpp ñu jël ay masque di ko def ci suñu kanam ba léeg sax koo xam léeg sax dootoo ko xàmmeeti nee na loolu day mi ngi ñaan ci sa barke ci sa barkey waajur ñu ñaan loolu jóge fi wante président nee na ah, mbas mi day ba tey mi ngi fi jógee fi kon nañ ko jàppale comme ni ngeen koy def di ko def saa digal nit ñi ñuy def li ñuy wax les gestes barrières muy distanciation physique di soreyante mooy di takk masque yi mooy tamit di faral di raxasoo saabu wala gel hydroalcoolique fexe yi ndaje bu mënul ñàkk daal ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu wàññi ko loolu xam na ni président Macky Sall nee na loolu ngay digal ñëpp di ko digal taalibe yi di ko digal mboole mu jullit di ko digal waa Sénégal nee na moom yëpp na ni loolu yaa ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax ah, yàlla bu baax a baax yu ñu yàlla mayee nawet bu barkeel ndax ñaanoon nañ ko ñaanoon nañu nawet bu barkeel ñaanoon nañ taw bu bare te am barke te suñu borom def nañ sutura mbas mi de am na wante ci kaw gi day wax dëgg yàlla suñu borom baaxee nañu nawet bu nangu mu ngi ñaan nee na nawet bu nangu boobu yar nañ ko muurloo ñiy góob la ñu góob yàlla nañ ko muurloo ñiy déqi la ñu déqi yàlla nañ ko muurloo ñii witt la ñu witt yàlla nañ ko muurloo te loolu lépp doon jariñ ci biir Sénégal nee ni nga ko muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon ci soxla askan wi rek la nekk lépp lu mu man pour suñu réew mi développé jëm ci kanam ci jàmm ak salaam ci lay xëy ci lay gont ci lay yendu ci lay fanaan nee na mi ngi koy sàkku ci sawet nga ñaanal ko ñaanal ko moom président Macky Sall ñaanal gouvernement am ñaanal Sénégal yépp ba jàmm rek di am ci suñu réew ba koom-koom rek di am ci suñu réew ba yeneen réew yi nga xamante ni loolu amu fa yàlla it dafa leen sutura xalifa bu Medina Baye nag Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass daal dina koy tontu ci turu mboolem xadara bi ay kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. jógee ci pauvreté dem ci am jógee ci tumuranke dem ci wéttaliku yooyu yëpp gis nañ ne dëgg-dëgg yéen a ngi ciy bay waar woo xam ne boo amee xel bu baax a baax da nga gis ne Sénégal mi ngi soppeeku si mi ngi soppeeku si te barke boobu yëpp gannaaw bu ngeen ñëwee yéen génération bu bees bii te génération bu bees lañ ndax président bi moo doon mag te defe naa cinquante cinq rek la am kooku ba tey mi ngi am doole mi ngi nekk xale bu ànd ay xale yu mel ni yéen tamit ak seen xam ak seen expérience ngeen yéenee ne Sénégal dana yëkkati ko Sénégal yi dañuy ànd ak yéen ci loolu te dinañ leen ci jàppale te dinañ leen ci dimbale ñi am kàddu wax ak ñoom yëpp ñu ngi leen di wax ñu ngi leen di wax dëgg-dëgg li nga xam ne ci lañ war a nekk parce que gouvernement bi kese kese tabaxul réew waaye gouvernement ak peuple seen kattan mooy tabax réew loolu nag peuple bi na nangul gouvernement am gouvernement bi itam nangu nangul peuple am ba pare boole koog yërmande parce que ci moom la yàlla teg loxo lu mu yërëmee ah mu yërëm leen ñun tamit ñu ànd ak moom nangul ko bu ko defee ci kaw loolu bala ñoo am ay at ci kanam da nga gis ne am nañ population boo xam ne amuñ ko woon da nga gis ñu am nañ volonté yoo xam ne amuñ ko woon da nga gis ñu am nit ñu bees ñoo xam ne amuñ leen woon te loolu yëpp dëgg-dëgg ci ayu Macky ak ñu koy dimbalee ci la feeñee donc mënuñoo ñàkk ñaanal Macky ci taxawaayam bi yal na ci sax te bu ko dara soppi yëpp nag mënta ànd rek ne ne nii la ala foog mu am jaxas-jaxas jaxas-jaxas yooyu bu mu jaxasee kenn ndax c'est tout à fait normal lu yëngatu rek foog mu am ànd ak loolu yàgg nañoo ñaan ci Covid bi takkusaan dañuy toog fii ci buntu kër gi jàng jàng kaamil wala jàng benn ñaan boo xam ne ci ñaan yu yàgg yi la di ko ñaan yàlla ñu yàlla musal ci covid bi loolu yëpp ci ñaan yi nga xam ne ànd naag liggéeyu médecin yooyu ñu xam ñaar yooyu bu àndee rek il faut que yàlla defal ñu résultat boo xam ne géntuñ ko woon yal na yàlla jëlee fi covid bi président conseil départemental bu moom i tamit ak délégation daal di ñëw jaale si xalifa bi ci wàccug liggéey ki nga xamante ne moo di Sayyida Xaadimatul cheikha mariama bintu cheikh al islam el haaji ibrahima ñas ay kàddu seedem lañ koy teewlu ak Serigne Gueye. tey dañ fi ñëw rek ànd ak euh, conseil départemental ndax yoon ñu ngi ki nga xam ni mooy Ahmed Babacar Niass di président de la commission quitte ak religion si conseil bi ànd ak samay conseil ak waa cabinet yi ñëw tey si Serigne Maye Niass bi nga xam ni mooy xalif général bi na bàyyi jaale ko li ñu bokk li ñu bokk nag muy fierté muy soxna Sada Mariama Niass nga xam ne tey ñi mu jàngal si alxuraan ay junni junni donc tey mu noon ambassadeur daanaka si àddara bi gën si biir Dakar mais également si biir Sénégal extérieur ndax bëri na tey ku jàng alxuraan ñi bind ci réew Nigéria fekk daara ju nga jàngal donc nitu alxuraan moo dem nitu diine moo dem kon nag tey dañ ñëw bokk ak moom defal ko waaye it euh, ñëw jaale ko ki nga xam ni ngeen mooy soxna Mariama loolu mën suñu tànk tey ñu def ko nag jiite si yoon bi nga ne mooy Ahmed Babacar Niass nga xam ne lépp loo la si biir conseil départemental moom moo ko yor ginnaaw Medina Baye ña nga ca lew dañu seen foofa nag mere wu ñu njiit mi Macky Sall ndax lam leen defal benn président musul leen koo defal imam moo wax li ni mel yokku ca ne président makki Sall waxut benn yoon ne lew nañu seen ren du ñu amal seen ziyaara ba ñu teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak Alfayda coow li nga xamee ne wax nañ ko ci mu jëm ci gouvernement bi coow loolu moo waral sama wax ji lépp yii nag sama kër la man sañ naa leeral ne Macky Sall ñun ñaseen buñ ko waxee wax ju ñaaw gorewuñ ñun kër xalifatul xaaji Mohammed Niass buñ janoog président Macky Sall wax ko wax wax joo xam ne dégg na ko dégg ko gorewut ndax mu fi def mësul am nun mu ñuy recevoir te yëkk ñu individuellement kenn ku ne mu lay fayal say soxla li tax ma wax ko it kenn kiiwu ma pression yu bëri na téléphone yu bëri na ma xam ne yàlla def na yonent bi seen yàlla yi caaxaan yi ñu def ci kaaba gi bu ko saaga de boo ko saagaa ñoom it ñu saaga sa yàlla kër gi yàqu ca kër gi mësul am lii raison boobu moo tax may def lii Macky Sall day kër gi merewuñ ko te man maa gën a placé quiconque pour wax lool ñaareel bi ziar bi tax ñu koy wax ziar bi Macky sàll day waxoogul kenn ne ko bu leen ziar déedéet ndax bu ko waxoon it ñun am na nañuy nawle duñ tëb ne nangam nangam fekkoon na bu nee na bu leen ziar ne Touba bu leen màggal bu màggal poroxaan am bu nangam am ziyaare nangam am na am wala nangam dañuy seet si nawle yi waaye waxagu ko ci le contraire sax wax na sax bu boobaa dana ci def ndimbal def ci nii def ci naa def ci naa duur ne nag loo xam wax araab ne na ku xam lépp wax lépp nee na yàq nga lépp président Macky Sall ndax yontu moo ne dee leen ooye nit ñi seen i garaat waaye am na ñoo xam ne baatu président Macky Sall sax réy dañ koo wax te yàlla moo séddale de di wax taalibe yi président Macky Sall defut ci kër gi luñ koy meree man politique lu man yaakaaru mu ba ma yàlla jox teraanga booba kiiwu la tey itam yoru kon su ma wax ji mi ngi dëpp ci rek ne nañu dellu fa nekkoon naka noonu tamit porte parole bu lew nañu seen Ahmed baaba Niass daal dina yëkkati kàddu leeral ne leew nañu seen ca Blaise Diagne ba ci Macky Sall mosuñoo contre état kàddu yi ñu doon dégg nag waxtaanu biir néeg la réseau sociaux yi ñooy ñu ko génnee Cheikh Ahmed Babacar Niass porte parole bu lew nañu seen ñu teewlu ko ci jokkoom ak Alfayda. nit bu nekkee ci xaal la muy wax ak na muy defee bokk la nekk ci xolam te nit ñi dañ lay topp ba dugal la foo xam ne boo amul ko fa nekk rek dana indi beneen problème ku nekk wax wax ci ëpp ci bopp sëriñ bi mu génnee lii ndax sëriñ bi bu amoon lu mu doon wax lu officiel sëriñ bi bu doon sànni xeer wala muy xuloo wala muy xeex day woo média bi wax ak ñoom ne leen lii laa bëgg te kenn mën koo di waaye benn caméra génnewu ko lu dul réseaux sociaux amul benn organe de boo xam ne génnee na ko lu dul lépp lu man di doon nekkut luñ waxtaanee rek mooy li nekk ñun dey kër maam Xalifa Laaji Muhammad ca Blaise Diagne ba ci Senghor Abdou Diouf ba ci ab lay wat ba ci Macky Sall mii mosuñoo nekk ñoo xam ne dañuy contre état mais wax ji jotagut siyaare mois de mars la Cheikh Tidiane xalifa bi nitu jàmm la nit ko am kersa la nit yiw la nit la koo xam ne sans façon nit ku nooyal wetam la ku ñëw mu recevoir la buy amul sax bëkk nekk nit koo xam ne tim bàyyi na xel njool njaboot njaboot gi mu bàyyi xel nag moo tax tey yi lenn ci njaboot gi garab ak parti bii di parti Macky Sall wax dëgg yàlla garab googu bokk nañ ci ñun ci ñu ko fi jëmbat ñun nag duñ jëmbat garab ba garab gi naat meññi nga war cee jëriñu ñu jël suñu sémmiñ wala ca jaasi ñu ne na ngay gor garab ga man nekk bëgguñ suñu kër tumuranke te am na loo xam ne état ko man am na loo xam ne sëriñ ko man kenn ku ci nekk nag dana soxlaal moroomam mënu ñoo ñàkk ànd lii yëpp nag du suñu kàddu kàddu Mawlaa Seex Ahmad Tidiane la gannaaw bu ñu waxtaanee ak moom concerté wu ak moom mu yebal ñu ne nañ na mu gën a rafetee ak na mu gën a baaxee li passé passé na jeex na afalaaw ama salaf buñ ko déggati ci rajo buñ ko déggati ci bu buñ ko gis di journal jël nañ suñu responsabilité nag ndax suñu kër bëgguñ ko ko yàq lu nekk am na fu nekk lu nekk wax nañ ko fu nekk te dañ koy sutural président daal Macky Sall na xam ne fii ci lew na ñeseen diwul ñoo ko fii gannaawal dugul ñoo ko fii xeex dugul ñoo ko fii xuññi dugul lenn loo xam ne war nañ ko séq ak moom lu dul teraanga ndax bàyyi na xel kër gi konti bàyyi nañ ko xel président Macky Sall El Hadj Ibrahima moo ñu ko dénkoon mu dénkuñu ko kon ci jamono fii ñu toll lii lañ bëgg a weexal kër gu nekk fu nekk famille bu nekk am na góomu gannaaw nañ leen bàyyi suñu góomu gannaaw bu ñu ko kenn wokkalati mën nañ ko wokkal suñu bopp yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ñu dem ca frontière wu senegal ak Gambie te dëkk ba ñuy wax Faalifa ñoom nag lakk gu metti moo fa am niki démb xar bëy fas ngooñ yu baree fa lakk ba tax ñu nekk ci jaaxle di sàkku ndimbal Aliou Guèye ak Mansour Guèye ñoo ñu nettali na lakk ga demee ci téléphone u Alaaji Ibrahima Guèye Faalifa fii day safara moo fi xaw dëkk bi dafa am lakk kay waaw jamono yoo am na lakk bu fi amoon lakk gi nag li ci yàqu bëri na am naa fas bu ci fas bi moom ki ma jox téléphone am cinq cent mille su ko ëpput waaw ah. ngooñ moom li fi yàqu moom ne lii tooy na boo koy bi daa amatul njëriñ daal ci ma ne ngooñ daal li fi yàqu moom si ngooñ moom si ngooñu kër bi tout moom moom lakk na passeport rosé ko ba ngooñ daal yàqu na daal yàqu na daal waa gerte dugub bi tamit wanag yi ñu amoon ñëpp lakk na li mu bëgg a xam mooy benn kër moo lakk ndax kër daal li fi yàqu daal bëri na euh, lan moo andi lakk gi lakk bi daal xam naa daal ñun daal toog nañ di xañ booy seen flam bi mhm. seen solal bi ñëw gis saxaar bi saxaar bi jóg gis ko ñu daal lañ ko gisee waaw Falifa fan la nekk Falifa muy côté Fass Soukaré ah yéen Gambie bi ngeen gën a jege anglais waaw engrais bi lañ gën a jege parce que day. bon sapooru Gambie yi ñoo ñëw fay ko. waaw sapooru Gambie yi ñëw nañ fay ko ak yu Sénégal itam ak suñu léegi. waaye lakk bi laal Ibrahima Gaye garaaw na trop parce que xar yi ak béy yëpp danañ fi. bon di ngeen bon bu ngeen doon xayma li fa yàqu bëri na de. Eh, bëri na bëri na bëri na bëri na Ibrahima Gaye. lu mat fukki xar dee nañ fi. béy lu mat juróom-ñaari béy laal yëpp dee nañ. fas lu mat ñeenti fas kay yëpp gerte gi kay lu fi yàqu bëri na. ngooñ mi ngooñ mi kay ay ton ton kay ay camion kay. léegi lan ngeen bëgg a wax askan wi. askan wi ñu ngi leen di ñaan dimbal bu baax a baax a baax a baax nekk. kilifa réew a baax a baax a baax a nag mbaa Barsàq di ndaw yi nga xamante ne ñu ngi dugg ci géej gi la ca gën a bëri nag seen yaay yi ñoo leen ciy ñaax di leen ci dugal ndaw yi catholique yi nekk ci diwaanu Kaolack ñoo xam le li ni mel ba pare nag fas yéene jóg xeex li ni mel Cheikh Babacar Dieng suñu ndaw fekkee woon na mees ba ñu amaloon jagleel ko wàllu jàmm ñu teewlu ko. jaaxale gu rëy la jëm ci askan wi comme ni mu jaaxalee gouvernement bu Sénégal lu tax ndaw yi di jógee ci réew mi rek di xuus géej gi na dañu wutali Barça dem bu dee ci Kaolack moom soxna yi dañoo jàpp ne gune yu bëri yuy jël gaal loxo seeni yaay mu ngi ci biir Félicitine Ndione moo jiite femme catholique yi nekkee ci Kaolack waaw maman yu bëri daal complice lañ moom parce dañuy tegg seen natt seen tontini ñenn ñi dañuy dem di leb ñoo ñëpp di encourage seen doom parce que doomu diw tekki na man sama doom dafa war a tekki waroo xool ne doomu diw am na lii rek man sama doom dafa war am lii yàlla mooy maye ku wàllu nguur gi rek waaye kilifa yi ci wàllu wu ne ku nekk war ngaa ñaax say soxna ngir nga xam ne teggi natt fayal gune ñu dugg ci gaal jëm bitim réew du solution bi femme catholique yi ñoom ñu ne tàmbali nañ ko sax seen présidente Félicitine Dione waaw man de maa ngi wax sama femme ne leen daal seen doom yi da di waxtaan ak ñoom fii dara jarul jël géej bi ne da ngay dem uti liggéey extérieur ndax lépp lu am ci dëkk bee mën nga ko am fii la ngay dajale ne da ngay jël di paas je crois que loolu boo ci liggéeyee mën nga diisoog ñoom ba nga xamante ni kenn du ci am euh, fit wala xel ne damay dem tukki jël gaal yi wala lool. ñu ngi ci njeextaloom at mi weeru décembre gii di mandargaal gan sik àdduna yonentu yàlla insa chrétiens yi ñu ngi ci wàccaay li ak di ko dund waaye it de xam na ne jamonoy ñaan la. moo tax messe bi tey donc ñaan nañ ko messe protection divine messe d'action de grâce yàlla sàmm ñu sàmm suñu Sénégal lépp luy feebar mu génnee ko fi ba ñëpp nekk ci jàmm jàmm rek ci Sénégal. ñoom nag kàddu yi ñu yëkkatoo ko ci réew mi la ñu ko tuddee woon ngir xeex nag wàllug mbëkk mi moo tax njiit réew mi Macky sàll bi mu dikkee fa àndi li ñuy wax plan Sénégal émergent xamal ay formation professionnelle lépp ngir ndaw ñu am ci lu ñu jàpp ki xam la li ni mel mooy amat Loum département bu Nioro ñu teew teewlu ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng. maa ngi jaalee mbokk jeunesse bi yëpp ci xale yi nga xam ne ñoo perdre seen dund ci gaal gi ci lu ñu noon dañ doon wuti mu nekk loo xam ne nag xëy na du lu bees yàgg nañ ko def ba tax na monsieur le président de la république son excellence ba mu ñëwee ci pouvoir bi lu mu njëkk a def mooy tëgg benn programme boo xam ne def ko tuddee plan Sénégal émergent boobu mënul am tant que développement du capital humain mooy formation yi nit defuñ ko moo tax ci kaw loolu nag mu jël éducation ak formation professionnelle def ko priorité ci kaw loolu moo tax mu jël formation professionnelle mu def ko ministère à part ci kaw loolu nag mu outil moyen pour tabax ay infrastructures yoo xam ne ndaw yi am fu ñu mën a jàngee ji pour am qualification parce que balaa nga ne naam ne fa te nit mënul am xëy te amoo qualification ci loolu nag la jóg depuis quelques années gis nañ moom le département de Nioro dafa nañ ko ñaari centre de formation professionnelle yoo ko wax mooy ci Nioro ak Porokhane yoo xam ne ndaw yi mën nañ fa dem wute xam-xam pour am liggéey donc sensibilisation tey bi dafa ñëw ci Wampom parce que dina tax mu xamal ñi xamutoon ne lii mu ngi fi ñu xam ko pour mën a jëriñu mën a def Sénégal màgg fi tekki fi jëriñ seen réew ndaw ya nekk nag ci département bu Nioro ñoo gën a bëri ci lu ñuy dugg ci gaal yi ngir dem Barsamba la Barsàq moo waral bëccëgu ñaax ndaw ña la ñu ngir ñu génne seen xel ci li waxuma la ak sax na ña ngay dem Mali ci anam gu leeru dara Mamadou si moo jiite ndaw ya nekk ci département bu Nioro ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng waa ndaje bu am solo la parce que dafa ñëw ci waxtam ñëw ci waxtu boo xamante ni ñëpp xam nañ ne li lëmbe àdduna lëmbe Sénégal mooy mbëkk mi mu ñëwaat mu doon loo xamante ni jàppoon nañ ne jeex na mais dañoo tiit parce que bañ gisee li dee ci géej gi ay nit yoo xamante ni dèjà hésité wuñ benn yoon pour dem dee mu mel nii nit ñi dañu naa moo tax euh, activité bi ba vis ñëwee ne da ci ànd ak ñun mais def ko ci commune Daaru Salaam nga xamante ni dëkk tukkikat la mu doon loo xam ne lu ñu neex la ñu koy rafetlu vraiment di a di wóyal parce a jeex te du mës a doy a waxtaan ci mbirum dund ñaari mën naa ne émigration moo fi am benn boo xamante nii di dem ci géej gi mais am na ñeneen ñoo xam ne dañ fiy jógee ko di fi bàyyi ko di dem Mali gii weer yu weesu def nañ ci ay jéego yu am solo ay sensibilisation pour wax ne am na ndaw yu bëri ñoo xam ne dañuy fay bi di dem def mu doon njàqare doon tiitaange également aussi commune bi nga xam ne moom moom moo fi nekk historiquement dëkku tukkikat la mais nag ñëpp xam nañ ne comme que situation bi ñëw na il faut ñu gën a wax ak xale yi ñaax dina laa sensibiliser pour bu tukki mën a ñàkk ñu dem fi nga xamante ni moom mooy demin ba mooy dem wut visa ñu may la ko nga jël avion parce que gaal yi ñëpp xam nañ ne sa xaalis moom mu ngay ñàkk wala sa bakkan donc moo tax ñu ñëw ci activité bi mais pour firnde na rek département Nioro département boo xamante ni li fi nekk ci migrant lim bi vraiment lim am solo la mën nañ ne donc mooy sax département bi nga xam ne moo ëpp migrant yi nga xam ne dañuy dem bitim réew ndax météo am na njëriñ ak ban la amal baykat yi yi ni mel suñu daw Cheikh moo ci indi ay tontu. faggandiku wala waajal sa bopp ci bépp xabaar boo xam ne mu ngi jugee ko ci météo wala ANACIM nekk lu am solo ci bépp askanu yaa xam baykat la wala ñeneen ci ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci yeneen secteur météo ak i xibaaram nag jàpp ne baykat yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Mamadou Ba mooy chef de service météo bu diwaanu Kaolack. baykat bi xibaar yi wala am ci njëkk d'abord mooy prévision saisonnière bi nga xam ne ñoo ngi koy def mois de mai fin mois de mai lay disponible boobu moo gën a soxal ren taw bi dana teel wala du teel ndax ndox bi dana bërim du bëri donc loolu moo gën a soxal beneen bi mooy prévision quotidien yi nga xam ne moom la def pour mun a def ko par vocal ak beneen bi nga xam ne nag jot nañ di ko jëfandikoo ñu ne gis nañ ci seen bopp bu baax baax bu ñu sukkandikoo ba tey ci Mamadou Ba récemment ñu ngi doon dugg ci àll bi pour waxtaan ci ak baykat yi pour xool ba xam xam ndax am nañ jafe-jafe pour jot information bi ndax ñoo ngi koy na leen njëriñ et que ñoom ñëpp réponse bi ñu joxe mooy affirmative parce que ñoo ngi koy utiliser te depuis ñu koy commencé utiliser ñu am ne am na ko solo nag xibaaru météo yooyu ak ANACIM nag jaarale ko ci jaww jekk tolluwaayu mbay meek yu ni mel moom daa jàpp ne askan wi war nañ ko gën a faratalaat message bi nga xam ne moom la ñuy jaarale ci béykat yi jaarale ko ci mbooleem population sénégalaise mooy ñuy gën di bàyyi xel information météo ak climatique yi nga xam ne waa ndaw météo ak ANACIM ñoo ngi koy joxe soxal nag wàllum napp mi météo gis ne tamit beneen taxawaay lañ ci am Mamadou Ba. bon nappkat yi moom li nga xam ne moom la teel mooy am information bi ndax xam géej gi dana yëngu wala du yëngu donc loolu aussi ñoom ñoo ngi koy jot te aussi chaque quai de pêche boo fa benn ndaw ba nga xam ne moom moo fa nekk bi nga xam ne moo jokkoo ak météo chaque instant pour mun di xam information bi ci biir géej nan la war a demee. si waxtu sedd bi ñu nekk tamit météo mu ngi sàkku ci ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi ñu gën a bàyyiwaat xel si seeni xibaar. at mii di waaj jeex nag mu di li nga xamante ne moo ci gën a fës mooy mbas mi ñuy wax corona. jafe-jafe yu mu àndil askan wi gàllankoor yi gëstub soxna Ndeye Fatou Cissé la ñu teewlu ko. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous avec solennité. l'heure est grave. bu kenn génn seen nag. atum deux mille vingt kon la ca des ngir mu tàggoo ba faw di lu néew ndax aljuma jile moo nar a doon na benn fan ci weeru janvier deux mille vingt et un mille vingt et kon un day remplacer zéro zéro bu mujj ca deux mille vingt deux mille vingt nag bu dee at la boo xam ni bari nañu ko dul la fàtte ndax bànneex ñeneen ndax naqar ñii ndax ay jafe-jafe yu tar lool la ko mën jur bari na barça wala barsaq kenn du ko fàtte. ci ñëpp bokk nag ci àdduna wërngal këpp rawatina fi la ci Sénégal mooy feebar bi la di coronavirus ak yi njeexitalam koom-koom bu ndërmeelu ba léegi si la ay secteur yu bare ña ca yëngatu ña ngay wéy di nekk ci lëndëm dëkkee foraatu ndax seen am-am day wéy di ko yëkk ba léegi si lee saafara te caa am waaye ak lum si mën di doon tey si tey ak at mu bees mi lee àdduna dëgmal fii ci Sénégal doonte ni coronavirus jógewu fi ba léegi si la am na ay slogan yoo xam ni moom la yàlla di ko dégg ba koy dund gi. toog leen la ñu wax. bu kenn génn seen kër. vingt heures su jotee nag. coronavirus ni mu ngi fi ba léegi si lee fexe ba yenn mesures yi fi jaaroon ak loraange yu métti yanu doon jural askan wi bañ a bokk ci liy marqué at bu bees bile mu mel ni kon ku ne war na caa góorgóorlu. ma dégg ne marqué mu ne saa bu baax sa loxo su tilimee gan gu bañee ñibbi te mënuloo toxu da ngay xool nooy dëkkee ak moom. defarkatu kawdir cin yi nga xam ne la ñuy toggee ñu ngi ci ay jafe-jafe yu bari wàllu subvention moo ca gën a fës ya nekk ca diwaanu Ziguinchor Mouhamed Sagna suñu ndaw la ñu fa nekkal demoon na seeti leen. defar matériel yi ñuy toggee yi mel ni ay kiin ay cumaar nekk na liggéey bi nga xamante ne jafe na toxob bi la defarkat bu ñu fekk ci bërëb liggéeykaayam ca Grand car dellu si na si lu muy defaree kiin yooyu le aluminium laa koy jëlee mais damay muul am nay mesure yooyu laay jël ma mesurer jël canette mélangé ak lu diis bi comme lu ma lay expliqué noonu jël forum bi ba pare ma mun a tourner ma génnee tilim bi après ma génnee kiin bi quoi noonu laay seeyaalee ngi jànkonteel ay jafe-jafe pour am li nga xamante ne mooy aluminium bi ba tax na ñoo ngi ñaax kilifa yi ñu mun leen subventionné ci prix matière boobule. jafe-jafe mooy problème aluminium bi pour nga ko am da ngay sonn aluminium bi nga xam ne dañ koy seeral Guinée loolu jógee léegi jógeetul Guinée fii nga koy amee ci mécanicien yi te bala nga ko amati te ñu ko bëgg daa bari bu ñu sañoon daal mu dimbali ñu ci. yile defarkat ki tamit jot nañu lor bu baax a baax ci mas mi ndaxte liggéey bi doxul comme dëgg. waaw depuis coronavirus bi vraiment affaire bi moom doxatul noonu quoi. donte ñoo ngi jànkonteel ay jafejafe yi la defarkat ki ñoo ngi góor góorgóorlu saa su ne ngir ñu mën a livrer commande client yi. Ziguinchor Mohamed Sagnan Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu daal di àddu ci lu soxal wàllu ko njàng mi ak njàngale mi waajuru ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci école Sam Serigne Aliou Cissé rafetlu nañu bu baax ni njàng mi tàmbalee waaye tamit di ñaaxit seen naataango waajuru ndongo yi ñu xam ne mbas mi corona bi jeexagul ba léegi mi ngi fi ñu gën a fagaru jël seeni matuwaay Baara Gueye moo jiite waajuru ndongo ya nekk ca école ba ay kàddoom noa bi ay moo ko taataan rafet lu nañu wax dëgg yàlla ni ñu reprendre cours yi ndax parents yëpp demoon nañ ba xaddi ba seen yaakaar xaw a tas on appelle les parents d'élèves où rapprocher de leur école élémentaire pour voir ensemble comment il faut faire euh, que tout le monde y mette du sien. Chacun doit savoir que l'école est pour la communauté, par la communauté et de la communauté. Nous sommes donc les premiers interpellés fexe ba xam ni Covid bi jeexul Covid baa ngi fi ba tax na kon mesures yi ñu daan jël dañu war continuer di ko jël école yi amul kenn kuy toog ñëppay ñëwandoo ah classe yi na mu daan toll lay toll am na classe yoo xam ne noonu te mbas mi jeexagul buñ sañoon ren ji ni ko autorité étatique yi bëggee autorité centrale yi année la boo xam ne année spéciale lay doon boo xam ne année bu paisible lay doon yàlla mën a def la manqué woon daaw ci programme yi ñu mottali ko ba programme ren itam ñu mën ko jeexal pour que déwén ñu retrouver une année normale mbootaayu ndaw ya nekk ca quartier bële di Kasnack jël nañu ay ndimbal ci kaye jumtuwaayu école dimbalee ko waajur ya nga xamante ne ñoo nekk ca seen quartier ba te seeni loxo jotul seen digg ginnaaw Ibrahima Samb moo jiite association Jeunes Unis du am ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Diagne. bon li ñu fi dajale woon moo nekkoon fexe dajale quartier bi def ay ndimbal yoo xam ne yi dañ koy dimbalee suñu waa quartier mooy lu jëm ci ay fourniture scolaire lu jëm ci ay saak kaye ay bic ardoise pour ñu dimbali kooku suñu jigéen yi nekk si quartier daaw joxoon nañ plus de cent personnes si ndimbal gi ren bugg nañ joxe plus de deux cent personnes maanaam juróomi téeméer ci ndimbal gi ren. bu ngeen ban jàngat ngeen def ba gis ne war ngeen jàppale parents yi ci waaw dañoo gis ne ñun nag la boo xam ne bi ñëpp ñoo yem ñëpp ñoo unir boole seen doole léegi kaas nag li fi am amul mun naa wax ne ci yeneen quartier yi mag ak ndaw dafay saafonte gune mag yi dañuy saafonte léegi nag ñu dem ba xam ne charge yi bëri na si parents yi nit ñi at bu jot dañuy jënd ay kaye ñu ne léegi nag pour pourquoi pas ñun en tant que ndawu gox bi ñu jóg jéem a fexe ut lu ñu dimbalee suñuy parent pour charge boobu gën a wàññeeku mooy comme lu ci demee ni joxe leen ay fourniture scolaire feebaree ñu mun a am fu ñuy dem faju te du leen dikkee dara loolu moo taxoon nag ñu forme association bi daaw def nañ ay cours de vacances ren bëggoon nañ ko féddali defaat ay cours de vacances chaque année bëgg nañ daal mu gën a améliorer gën a yokk lépp lu ñu def ren rek bëgg nañ bu déwénee loolu gën a yokk loolu laa doon wax léegi daaw joxe nañ suñu groupement femmes yi xaalis boo xam ne bii dañ koy liggéey di ko delloo pour joxaat ko ñeneen ñooñu tamit liggéey pour delloo bon daaw li ñu joxe mu ngi tolloon si ñaar fukki junni mais ren bëgg nañ joxe lu tolloog téeméeri junni pour ñu jox beneen groupement mu liggéey delloo ko lépp yem na daal léegi nag bugg nañ di ko féddali non seulement buggatuñ ko def rek mu yem kaas nag mais quartier yi wër Kaasnak bugg nañ yegg foofu noonu pour ñoom ñoom ñu jot ci ndimbal boobu noonu li ñu gën a yitteel mooy toujours rek boole dajale suñu quartier rek ñëpp nekk benn wàññil leen coono bi parents yi di daj ci bu école tijjee ak ci faju ak leneen quoi. ñoom waa juru ndongo yi nga xam ne nag ñoom la ñu jébbal ndimbal li ni mel daal dinañu koy rafetlu bu baax a baax sant mbootaayu ndaw yi ni mel ñaana leen yàlla ci seen xamante ne yàgg nañu koo amal ca Kasnack seen kàddu ngërmande yi Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. yéen a ngi dimbale ndey yi yéen a ngi ñuy dimbale lii ndimbal dëgg la ndax ku am élève nga jënd ko saak saak dafa seer def ca kaye def ca lépp ñu leen di ñaanal yéen ñu ko fabriqué di ko def yal na leen yàlla yokk ci barke sëñ Babacar Si yàlla ngeen yokk nag ba yëg ko lool. xanaa mbas mi daf leen ay petit géwél yu ndaw lañ dañ daan liggéey di wayaan di ñëw defatuñ ko ñu toog yéen ngeen indi xéewal gi ah ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yokk nag ba yëg ko lool nag. xale yi amuñ fekkee ne amuñu saak xéewal gi dikk di ñaan fu ñu toll ngeen gën a yokk daaw itam joxoon ngeen ñu ko ren tam jox ngeen ñu ko at mu ne yàlla na doon téeméeri at ba lu ko weesu waaw ci barke sëñ Babacar man Sophie Ngom laa tudd ma dëkk Casamance gi day xadi xanaa baax rek xéewal rek comme ñun parents d'élèves yi ñoom yàlla dafa def sax seen papa dafa retraité kon boog dañ leen di remercier rek ci seen bopp tey di kay moom ak euh, bi ngeen jox leen cadeau bi sant yàlla rek di leen ñaanal rek xéewal bu bari bari sa yaar yëg ko rek Khady Sarr hmm, da ngeen jël woon dañoo jël si woon ci saag yi baax na de te mi ngi dimbale njaboot gi moom bu baax sax wax dëgg yàlla kontaan nañ si ñoom torop ndax euh, seetaanuñu benn yoon ay yàlla na leen yàlla defal jàmm daal loolu laa ci gis dëgg ci liggéey tey euh, dimbale yenn ngay ñaax ñeneen ndaw ñeneen ndaw ñi daal suñ mënee ñi ñii def ñu def noonu daal laa ñoom daal wax dëgg yàlla ndax seetaanuñu benn yoon ci koñ askan bi ñu fi nekkee ba léegi ak ñoom saa yuñ jaaxlee rek dañuy geestu yal na yàlla suturaal yokk seen liggéey bu baax ca kaw ca kanam. xabaar yi. bitim réew xibaaru bitim réew yi dañu ci ànd ak Cheikh Tidiane Sarr nuyu naa la ca réew mi di Mali lañ koy dooree wax ci faat bi nga xam ne def nañ ko ci ñetti soldat yoo xam ne ca réew mi di France nag euh, la ñu dëkk nag ñoom nag ñu ngi ñàkk seen bakkan gannaaw bi nga xam ne ñu ngi woon ci ab opération boo xam ne Seydina Omar nag ñu ngi ko doon amal foofu la ca diggu réew ma nag euh, di Mali soldat yooyu nag euh, bokk ci kuréel gi ñuy wax force Barkhane nag ñoom daal gannaaw bi nekkee si seen opération yooyu nag jaarale ko si seen oto yooyu nga xam ne dañ ko belende dañ leen song jaarale ko ci ab euh, bomb boo xam ne nag ñu ngi leen ko jóor foofu la ca douane bi ñu wax Ombari ak yi euh, nag bu ñu sukkandiku ci xibaar boo xam ne waa Élysée fësal nañ ko nag ñu doon ay soldaa yoo xam ne nag ay rëbbkat lañ bokk ci premier régiment bi nekkoon foofule en opération nag ci Ombari ak euh, gos yi ca désert bi ñuy wax Gourma frontière rock Burkina Faso. xabaar yi. ñu wax ci tolluwaayu journaliste yi ak Reporters sans frontières mi nga xam ne def na bilan ci atum 2020 bi ñu nekk nag nee na daal euh, juróom fukki journaliste nag euh, faat nañ leen ci atum 2020 bi nag Seydina Omar nag jàppal daal bu sukkandikoo ci Reporters sans frontières nag mu ngi xam ne lu nu bi nga xam ne def na ab euh, bilangam boo xam ne mu ngi soxal at mi ñu nekk nag mu ngi xam le ne daal lu ëpp ci réew yi nga xam ne nag jàmm am na fa bu baax a baax gis nañ ne daal ñu bëri ci ay journaliste nag dañu leen fa faat nag ci atum 2020 bi yi nag at mi nag gis nañ ni daal ci réew yi nga xam ne dal am na fa bu baax a baax fanweer ak ñeent ci ay journaliste nag faat nañ leen fa mu tolloog nag 68 pour cent boo jëlee téeméer bu nekk nag mu doon jëf yoo xam ne ONG bi ñu wax Reporters sans frontières Seydina Omar naxarlu na ko bu baax a baax. ca Inde la ñu jubali wax ci ab étudiante boo xam ne ay atam mu ngi toll ci ñaar fukk ak euh, benn moom nag dañ ko tabbu daal léegi ab maire ci benn capitale boo xam ne nag mu ngi foofule ca Kerala moom étudiante boobu nga xam ne nag ay atam mu ngi toll ci ñaar fukk euh, benn nag di wuyoo si turu Ariya Rajendran nag dañ ko tabbu daal mu jiite dëkk bi ñu wax Trivandrum di capitale boobu nga xam ne moo nekk ca état bu Kerala nag gannaaw bi nga xam ne amal na ab campagne jaarale ko nag ci wàllum wér-gi-yaram ak euh, cet gaag yu nu mel mu bokk nag ca parti bi ñuy wax parti communiste doon ab étudiante en mathématique nag nee na nag dina wéyal di continuer njàngam nag waaye tabam googu nag ñu bëri ca réew ma jamono ji daal dafa leen bett waaye tamit am na ñoo xam ne dañ ca bég lool ndax nag dañoo gis ne ndaw la waaye tamit fësal na boppam imposé boppam doon tamit jigéen ba nga xam ne dina mën a bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal gox yeeg goxaat yi foofu la ca réew mi ñuy wax Inde. xabaar bitim réew tolluwaay mbas mi ñuy wax covid 19 lañ koy jeexalee ak réew mi ñuy wax Afrique du Sud nag Afrique di Sud nag euh, hôpital yi daal ñoo commencé nag di fees bu baax a baax ba tax daal médecins yi commencé di tiit lool gannaaw bi nga xam ne nag ñoom ñu ngi ci ñaareelu vague bi nga xam ne mooy vague covid 19 nag ñu gis ne kaa yaa ngi fa yokk bu baax a baax tombeek tamit euh, président ba di Cyril Ramaphosa nag jëlaat yeneen ndogal yu bees tax bokk na ci sol masque yi ci yenn ci ay barab yoo xam ne nag nit ñi dañ fay dajaloo ay tamit njaayum alcool bi ci réew Euh, ci waxtu boobu tamit jàppale daal Seydina Omar gis nañ ne réew yu bari bëri jël nañ seen waaye ak euh, vaccin yi nga xam ne door nañ ko fa ngir gën a fàggandiku ci ñaareelu vague Covid 19 bi. xabaar yi bitim réew. ginnaaw bu ma la nuyoo Moussa kan xibaaru tàggat yaram yi fan nga koy dooree. mbokk yi jaa ngeen jëf dellusiwaat nañ ci seen ñaareelu numéro bi ñu jagleel xew-xew yi gën a mag ci àdduna jëm ci wàllum tàggat yaram xam ngeen ni mas mi di coronavirus daal dina taxawale mboolem xeetu compétition atum 2020 nag ma ngay dem yóbbaale yu bare bare yu ci mel ni bànneex ak naq rek. génn ko àdduna basketteur bi di Kobe Bryant dimanche ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier atum 2020 ci ñeent fukki atam ak benn ci benn accident ci hélicoptère kenn si ñett ñi dàq basket ci histoire u Lakers yi nag génn adduna ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier ci ab hélicoptère bu daanu ànd ak doomam bu jigéen bii di Gianna ak juróom-ñaari ñett ginnaaw bi nga xamante ni hélicoptère bi dafa écrasé wu foofu ca Calabasas ca Californie ca weeru mars atum 2020 ci la jongante yu bëri wala compétition yu bëri sax ci la tàmbale woon di arrêté juróom-ñetti fan ci weeru mars Ligue 1 ca France nag daal di taxaw te du dooraat yeneen championnat ci dana ko Europe nag mujj jeex ci weeru juin ak sulet fukki fan ak benn ci weeru mars ci la ñuy amal nag match retour huitième finale Ligue des champions ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars CIO nag daal di jël ab ndogal ne dafay dàq ni lii di Jeux olympiques Tokyo yi nag atum deux ba atum lu ko jiitu nag Euro deux mille vingt moom it reporté woon ko ci atum deux mille vingt et un atum bokk na ci xew-xew yi ko gën a marqué nag finalu Ligue des champions bi ñu amal ci huis clos doxoon ci diggante Bayern Munich ak Paris Saint-Germain ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août foofu ca Lisbonne te nag doomu Allemagne yi daal koy mujj jël benn bal ci dara Lionel Messi nag dugg na ci taarix ndax moom mooy football kat bi ñu tàbb ñaar fukki fa ak ñaar ci weeru décembre atum 2020 ci la nag doomu Argentine bi daal di dugal 644e butam ak ñi di waa FC Barcelone di jël meilleur buteur ci histoire football xamante ni moo ko jëloon di doomu Brésil bi di Pelé dugaloon nag bi ak Santos ca atum ba atum Roland Garros nag amoon na ca ñaar fukki fan juróom benn ci weeru satumbar ba fukki fan benn ci weeru novembre nag di édition boo xamante ne ci gën a jàpp nag moom révélation bi di Hugo Gaston Nadal nag daal dinay def final bu doy waar daal di corrigé ki nga xamante ni moom Novak Djokovic doomu Marc bi nag jël na fukkeelu trophée ak ñett foofu ca Roland ak ñett boobaak léegi cyclisme français nag doon ko xaarandi kii di Laurent Bochard moo ko gëjoon def ci atum 1997 Julian Alaphilippe moom nag moo ko defaat ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru satumbar juróom-ñeenteelu tricolore bi nag daal dinay jël li nga xamante moom mooy tunique arc en bi ci champion du monde année at moo xamante ni ay record yu ci battre Lewis Hamilton pilote britannique bi nag daal dina def ab saison bu def na ko foofu ca Silverstone ci juróom-ñeenti fan ci weeru août atum 2020 ci atum 2020 si la ñuy génne àdduna bokk na ci Robert Arbin Christophe Dominic Michel Hidalgo Papa Diouf Jacques Secrétin Gérard Houllier Paulo Rossi waaye nag bi ci gën a fës nag nekkoon na bu doomu Argentine bi di no Diego Armando na ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre Ahmad Ahmad ki fi nekkoon njiitu confédération africaine bu football nag ci la ko faa jël ab ndogal nag aj juróomi at ginnaaw bi ñu ko tuddee ci ab mbuxum kii nag di dirigeant malgage bi am ba juróom-benn fukki at moom nag jiitu woon football africain ci weeru mars atum 2017 ba atum 2020 mi ngi noonu mbokk yi li mooy ñaareelu numéro bi ñu jagle li gën a fës ci xew-xew yi ci wàllum tàggat yaram yi jox leen dig daje ba beneen jàngeen jëf li ci yéene yi kaay yi L'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin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 nga xamante ne fa ngeen a foog na corona bi ay naxale amut ngir yàlla xool leen ci ñi corona bi rey xool leen ci ñi corona bi tëral xool leen njabootu ñu deele ci corona bi enquête yéene kaay na makki ma ngay artu sénégalais yi ñi gëmul corona bi nañ ko gëm te jël ay matuwaay ndax lu na dàng kenn du ko jiix corona bi am na de vox populi na ko ngir dëggal li ngay wax président corona bi reyaat na juróomi nit Sénégal léegi ñu ngi ci fanweer ak juróom-ñaar yu dee ak fanweer ak juróom-ñaar ñoo xam ne ñu ci diggante Sénégal yëpp xam ngeen ñaata la ñetti téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ba tax njiit réew Macky Sall na a ko dégg yéen Sénégalais yi la korona bi rey ngeen xool si a a a na Macky kee ginnaaw bu mu ba pare fa lancé nag bi ngir aaru ci korona bi l'observateur di ñu xamal sowe suñ koom-koom bi wala sowe suñ bakkan yi lii rek fi sa bés de le quotidien yéen a kaay ne Macky nag njiit réew mi nee na caaxaan faaxee de fa nar ñàkkante ak gaañi ngir ñu respecté matuwaay yi yaw seetal di waa kër docteur rek rek rek rek munuñoo gañee xeex bi ci corona bi Macky ko wax l' évidence yéen a kaay mel ni ku naan ko président Macky Sall yow sax yokk nga doole waa kër docteur yi l' observateur na ko këm gën a ñaax kay sargal ko lu taxawaayam ci xeex corona bi mooy professeur Seydi mu ngi ci enquête yéen a kaay lii yéen na ko bu leen direct news na waa li ma di laaj yéen fa ngeen a bëgg a xeex corona bi te léegi-léeg matériel yi ñu koy xeexee fay ñàkk ba tax ñu bari di dee ndax corona léegi nag man li may laajte mooy nguur gi réewum Sénégal jëndoon nañu ay matériel ci wàllu corona bi xaalis bu tolloon ci cent milliards waa léegi ana cent milliards yooyu fuñ ko dugal ana lañ ca jënd ci ay matériel léegi laaj bi tontu li nag ba léegi déggaguñ ko nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na coow li fi juddu fan yii ci ay module xeetu njàngale ci SVT yoo xam ne fay gën a lawal wala jox doole mbirum góor jigéen ci école yi vox populi nee na ginnaaw bu ko syndicaliste yi waxee ba pare ñaawlu ko jëwriñ ju ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi leeral na yëf de yaaw seetal Mamadou Talla jeexal na debaa bi coow li ca laas yéen a kaay ndax nee na loolu xamut ay waxu caaxaan-caaxaan la amul benn école Sénégal bu ñu jàngale mbiru góor jigéen si du quotidien na ko gis nga syndicaliste yi fa ñoo boole seen doole fas yéen a ak yow ba loolu du am ci école yi lii yéen na gis nga wàllu école mi njàng meeg njàngale mi nguurug Sénégal lim ci dig jàngalekat yi te defut ko kenn xamu mu toll de fa bëri lool atum ren mii nag soo moytuwut kàtt gi na fee jaxasoo de enquête yéen a kaay na ko waxuma jàng men meeg mi waaye réew mi moo nar a jaxasoo ndax fii métti fa bëri jafe-jafe fa ñoo bëri makki kay tiisuma ko mbaaw yaw seetal njàng meeg njàngale mi coow laa nga fa wàllug wér-gi-yaram korona beeg ñoom seen coow laa nga fa wàllug transport dem beeg dikk bi sëfaru camion yi coow laa fa wal fajir yéen a kaay na ko coow dëgg nag moo topp makki ba muy dem keroog jaar avenue Cheikh Anta Diop makki daj fa loo xam ne mburu du ko daj taal xamal na coowal Petro-Tim bi Frank Timis ak Aliou Sall xàttekat ba suul na dossier ba jeex na pare nañ ca ndax gisuñu ci dara luñ mën a toppee Aliou Sall wala keneen kon coowal pétrole li xàttekat bi jeexal na ko li jeexagut Sénégal mooy douane recette yi muy am yu 2020 bii gàcce ngaalaama mille milliards record lu mësta am moom la douane bu Sénégal amal te mooy yéen a kaay ñi ko xamal loolu lu baax la li baaxut kay ci gis-gisu tribune yéen a kaay mooy mbir projet municipal ngir ngéntewaat avenue Charles de Gaulle ca Ndar Macky Sall fa weddi Mansour Faye tàggat yaram Maradona Pape Diouf Marseille Pape Bouba Diop Balla Gaye 1 ak ñeneen ñoo xam ne fañ doon yëngatu ci tàggat yaram waaye ci 2020 bi faatoo réew mi yéen a kaay ñu ko fàttali stade yéen a kaay di ñu fàttali moom it na Sadio Mané atum 2020 bi ñeen fukki jongante ak ñaar la ci xamal dugal fukki bal ak juróom-ñaar te tey daña bal ak Newcastle sunu lamb yéen a kaay jox kàddu Serigne Mbacke Ndiaye bi fi nekkoon jëwrin ne na man noppiwu ma woon ngir jiite CNC bi Vox Populi moom di ñu xamal ab chauffeur bu xàjjee koo allah yëf yaa nga amee ca wetu dëkk ba ñuy wax Touba Bouchra ba mu daanoon ak moom chauffeur bi dokk ga fa damm lii yéene kaay moom di ñu xamal benn xalalu jigéen fañ koo fekk ca néegam mu faatu ñàkk ba kanam allah fañ ko rey wala waxtoo ma jot yëf ya leeragut li leer l'observateur moom ba wax ko mooy ñeenti élèves yi doon def terminal soxna sa nga xam ne moo yor wàllu xaalis ba ca seen école ba moom lañ jël ay photom yoo xam ne fa caa def yaramu neen di ko laaj xaalis wala ñu wane ko ci internet bi mujj gi sax fañ koo mujj wane ci benn site internet loxo nag taxaw nañ ca kanam xàttekat ya ñi naqaree xàtte dëgg nag mooy yu bokk bëgg benn xale bu jigéen yéel téetéet l'observateur moo ñu xamal ne rivalité jamaale gu métti léeg-léeg nga gis ko ci xam na sax waajuy nettali ne tuuti ko noon mu rey benn jamaaleem waa ma ne du ko jar nag ñaari xale yu góor suñ bokkee bëgg benn jigéen xale bu jigéen ba moom na wax ki mu bëgg ka nga xam ne nag bëgguñ ko bu mu xeex bu mu rayante na dem seeti keneen bul nangu mukk ñu di la mbaraan te na bu ñu la ku lambu nag yaa tey fa ngay daagu fañ la bëggee te xale yi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 délégation gouvernement bu Sénégal mi ngi woon file ci dëkk bu sell bi di Medina bàyyi ni ki démb andi seen njaal ginnaaw wàccug liggéey Cheikha Mariama Ibrahima Niass bi nga xamante ne wàcc na liggéey ñu daal di koy jébbal moom ci wetu juróom bi ki jiite woon délégation ministre yi ni mel di Omar Gueye ay kàddoom ak la xalifa bi tontu lépp dégg ngeen ko ci biir xibaar yi. leew nañu seen nag merewuñu président Macky Sall te li mu leen defal benn président mësul leen koo defal du samay kàddu imam bu lew nañu seen moo ko wax arabi ñas yokku ci ne président Macky Sall mës ta wax na seen ziyaare bi duñu ko amal ren porte parole bu lew nañu seen timit Ahmed Babacar Niass daal dinay àddu ci coowal ziyaara bii ni mel seeni kàddu teewle ngeen ko ci biir xibaar yi demoon nañ tamit ca Faalifa ab dëkk-dëkkaat la bu nekk ca postu kër ay frontière Sénégal ak bi lakk gu métti moo sonal askan wa ni ki démb bëy xar ngooñ lu bëree ca lakk yàqu-yàqu nga foo ko natt weesu na ko ba tax ña ngay sàkku ndimbal lii ba mu yombee toftal nañ ci xibaaru bitim réew yi àndoon ci ak Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram ñu àndoon ci ak Moussa Kane li ci yéene yi moo jeexal xibaar yi auditeurs yi yéen ñi fare woon ci wàllu déglu gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen wax fii amaanillaahi le journal Omar Cissé